Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi di leen gërëm di leen sant avec les programmes de Salam Vision nekk une télévision au cœur du développement euh, gëstu bés bi nag ñu ngi koy jëmale euh, si naan tasum xibaar keroog junjuwal naa ko doon wax diggante taskari xibaar yi ak société naka la mën a demee tey nag xibaar bu neex euh, si suñu mbokku journalistes yi ak suñu conseils yi Euh, li ñu doon jooy démb am na presque ñetti at ñeenti at ñu naan le code de la presse mën nañu wax naam euh, décision bi génn njiité woon président Sall euh, signé na ko le premier janvier atum 2021 ñu ngi jëm nag si carte de presse yi carte de presse yi mooy dañ ko fas yéene woo saare si biir taskatu xibaar yi du ñëpp si jot de kuy journaliste di nga am sa carte de presse kan mooy journaliste kan moo dul journaliste askanu suñu gaal di wax ak mbokku askan bi ba démb rek euh, correct mooy ñiy saytu di gëstu mbirum tasum xibaar fi Sénégal ñoom commission boobu doon jàkkaarloo dem taskatu xibaar yi firndeel ni euh, carte de presse yi lañ ko tàmbali distribuer wasaare fukki fan ak juróom si weeru mars bi ñu nekk. dañu ne euh, képp ku dul journaliste doo taskatu xibaar doo jot si carte de pression yi loolu dëgg la lu leer la euh, dëkk bi nag mën nañu wax nag euh, journalisme day gën di jéggi dayoo métier bi yàqu na métier bi am na ñoo xam ni ku tëb naan journaliste la yàgg naa ko wax fi Salam Vision li ñu tax a jóg rek informer juste c'est vrai jot na ñu leeral nit ñi que carte de presse yooyu boo deful école de journalisme bi nga tàggatul si école de journalisme doo am si carte de presse euh, bu fekkee def nga fukki at euh, expérience radio télé presse écrite loolu war nga mën a am sa carte ba licence euh, bac licence plus deux ñooñu Euh, tey léegi ñooñu ay taskatu xibaar lañu ñoo ñoo ñooñu la ñuy si carte de presse yi euh, commission bi nee na euh, site d' yi ku nekk am nga sa site d' mais site boo xam ni dëppoowul ak yoon te ku ñu jàpp yoon la daan sa kaw ñu tëj la ñaari atu kaso ba juróom-benn atu kaso di nga fay ay koppar yu jeex ma ne caaxaan jeex na liñ doon lam-laame démb si journaliste yi euh, bunt yaa ngi commencé di ubbeeku président signé waa Synpics am nañ si waa CORED am nañ si waa Sénéral am nañ si dañ ne am na kayit yooyu euh, texte yu leer di jox joxe sa naissance di nga wane ay kayitu leer balaa la jox sa carte de presse ñi wax ak ñaam seen i lijaase jaar école de journalisme ak ñi am expérience dix ans la fukki at dans les médias loolu ñu ngi koy rafetlu tey ñu ngi koy rafetlu ëllëg di woo toutes les organes de presse les sites d'information la presse écrite le SYNPICS tous ces confrères que liggéey bi commencé na ma ne ku dul journaliste ëllëg di nga am jafe-jafe di nga am problème ma ne métier bi dañ koy jàng métier bi dañuy am expérience pour nga nekk journaliste gis ngeen ni keroog yaa ma fële ci assemblée nationale Euh, euh, député yoo xam ni euh, bëgguñu ubbi bunt ay journalistes bëgguñu joxe information des journalistes keroog Synpis ñu ko ñaw Bamba Kassé le secrétaire général du Synpis wax na ko musul gis lu mel ni Sénégal man ne journalistes yi ñu war fulloo ak fayda di wax ak les autorités surtout ministre la culture et de la communication mu jël ay motuwaayam que taskatu xibaar dañ ko war a jox gëddëm dañ ko war a respecté loolu mooy journaliste bu ñu bëggee métier bi jëm kanam di information bu ñu koy jox journaliste journaliste lay waxal daf ko war a saytu ba mu rafet jaar yoon nga wasaare ko jox askan bi mais jël information di ŋañi nit di saaga nit di tuuma nit loolu du presse moo tax euh, Synpics ak Le Correct du ñu bëgg a assainir maanaam setal dem journaliste yi te journaliste yooyu tey ñu war a setal seen bopp nañu bàyyi caaxaan di liggéey nañu bàyyi caaxaan di parparloo bu la neexee journaliste waru di waru ànd ak kenn la rédaction la neexee nga def sa politique yaay seet ki loolu du journalisme journalisme dafay nekk euh, sa deret journalisme passion journalisme abnégation la journalisme courage ak volonté mais presse Sénégal bi ñu gis nii euh, buñ seetloo jot dafay yàqu mun naa ne am na parti boo xam ni yàqu na ñu ngi am na xam ne dañuy talal am na xam ni séquestré ay personnalité am na ñoo xam ni dañuy euh, taxawaan di mbubboo journaliste yow créer sa de presse créer sa site ma ne balaa ngay créer sa site balaa ngay créer benn organe d'information ma ne da ngay jàng métier bi mais ku tëbtaral sa micro n'importe qui loolu du journalisme ma ne egsi na pour ces cartes de presse carte de presse nag commission bi le 15 mars lañ koy démarrer euh, wax naa ko mu junjiwaat ko di gën a sensibiliser waat conscientiser waat les confrères les consoeurs que caaxaan jeex na nañu gën a góorgóorlu euh, informer juste c'est vrai loolu mooy slogan Salam Vision loolu la ñuy war di def buñ ko faral def Sénégal ñoom benn gàllankoor dem leen yeneen réew yi la presse est développée partout aux États-Unis il y a plus de 300 ans que la presse a existé aux États-Unis dem leen France c'est un pays euh, d'information un pays de droit un pays de un pays un, de démocratie et bien sûr le Sénégal c'est un pays de démocratie am na liberté d'expression mais liberté wax ñoo ko war a inculquer suñu biir xol ak suñu biir esprit. carte de presse yi nag du n'importe qui lañ koy jox de incha allah ku amul ay kayit yu leer ku amul ay kayit yoo xam ni firnde ni yow journaliste nga du si carte de presse boobu di woowaat organes ñu gën a góorgóorlu ñu gën a toog di waxtaan di tàggat ndaw yi dans les rédactions surtout patron de presse te ñu bàyyi aussi di tour nit ñi lëndëm ku tëb ne diw laa àndal ku tëb. Euh, euh, di di di di mbubboo journalisme certains patrons de presse yoo xam ak certains confrères certains consoeurs ma ne nañu gën di góorgóorlu euh, di joxe des informations objectives des informations claires te di jaar yoon moo tax gëstu bés bi tey ñu ngi ko jëmale sur l'éthique et la déontologie yi ñu ngi koy waajal nag di woo ñëpp ñu góorgóorlu def liggéey bu mucc ayib informer les loolu bu ñu ko defee Sénégal du benn gàllankoor euh, sur le plan euh, d' information et surtout sur le plan de l'éthique et la déontologie mbokk yi li ma doon tey gëstu bés bi jëmale ko euh, sur les cartes de presse sur le rôle du di wax ak ñëpp ci si mbokk yi taskati xibaar yi gën di góorgóorlu bu ñu ko defee Sénégal dina jaar yoon il y aura une bonne gouvernance une bonne gouvernance d' di boo ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah